দেখলে কত 19 mai ci stadium Iba Mar Diop ah mbokk yi bés bi ñu doon xaar agsi na les 15 ans de Ndiaye production 15 de réussite mbokk yi bésu le 29 mai Fallou Ndiaye mi ngi ci invité ay xaritam ak i partenaire am mbër yi amateurs yi reporters yi communicateurs traditionnels yi képp koo xamante ni sponsor nga nga mës liggéey ak Fallou Ndiaye mi ngi lay invité ci bés boobu grand combat bi war a dox ci diggante Giro Seras ndaanaan bi war a jàkkaarloo ak Tonnerre numéro 2 trompeur numéro 2 ak Boy Diop ci bés boobu la bëri sox numéro 2 ak far farwu jar ak yeneen i combat espoir dinañu am cat sec en live ci digg stadium Iba Mar Diop mu bégal amateur yi sponsor leader bi nag du kenn ku dul Njaay global business jërë ngeen jëf mbokki Sénégal mbokki bitim wa rahmatulahi taala wa barakaatu yéen ñi koy suivre lamb ak actualité lamb te di ko suivre ci télévision bu mag bi nga xam ne moo di Bawal TV mercredi 25 mai ci atum 2022 ñu xëy ñëw ak yéen ci journal sunu lamb fekk di fa affiche am solo troisième journée Njàmbur production Lion Ray sa force ki nga xam ne nii moom moo di Cheikh Niang journal sunu lamb xëy jàll ci beneen combat diggante fils de Max ak ne nii moom moo di Batista numéro xam na ni moom moo di Lamine Seck décortiqué soog de 29 mai ci atum xam ne moom moo di Pape Pierre Amal Batista 2 waaye ba tey journal sunu lamb bu xëy jàll ci nga xam ne ni moom moo di Balla Gaye 2 lion un bois waaye ki xam ne ni moom moo di diggante soq ki nga xam ne ni moom moo di Franc ki nga xam ne ni moom moo di Pape Diagne Seras ñëw na ci boobule combat la mu xam ne moom moo di day un combat après disputé et électrique waaye ba tey ki xam ne ni moom moo di Boy Jaxaaw sur son combat ce sera une affaire lamb xëy di waxaat xaaloo inna lillahi wa inna ilayhi raji'un le monde de la lutte encore en duel ñàkk ki nga xam ne nii moom moo ko sunu borom yërëm ko xaari ko firdawsi ci barki Muhammad sallallahu alayhi wa sallam journalu sunu yemul foofu xëy ñëwaat ci yeneen combat diggante booy pira ki nga xam ne nii moom diggante fils de maxa ki nga xam ne nii moom moo di Batista numéro 2 journalu sunu ko ci mu yaatoo yaad muy journalu sunu lamb xëy fesal ko di wax ak moom mbirum li xam ne nii moom moo di journalu boobee nga xam ne moom si di jaxate da koy jëfandikoo waaye ba tey journalu sunu di ñu xamal ne day jadli waaye ki nga xam ne di li moo duloo day mbaadu ñi nga xam di amateur ki xam ne nii moom moo Ama Baldé ginnaaw ba amee li xam ne nii day moom moo duloo mooy blessure boobee ba waroon dem fi nga xam ne nii moom moo moo di Modou Lo mbaa di loolu moo tax ñi nga xam ne ni ñoom ñoo di amateur am tiit aku jaaxle waaye ki xam ne ni moom moo di les deux lancé un défi de Yékini ni moom moo di ba mu amoon ci diggante ba ki nga xam ne ni moom moo di Lac de Guiers 2 loolu jeex na tàkk ki nga xam ne ni moom moo di Toubacouta première victoire à Dakar en frappe journal sunu lamb bu xëy na ci ñëw moom Toubacouta moomee la mu xamle nag ci xatum sunu lamb moom moo di bëgg na jël relève ki nga xam ne ni moom moo di Bombardier à Mbour jàppale ki xam ne nii moom di Pape Ngane et sox-sox réussir ce début en waaye ba tey journal sunu bu xëy di ñu xamal ne lutte simple ba ñu tëggoon foofee nga xam xam ne waa kër di Ndiol Sia xët la jël tekki loxo waaye ki xam ne nii moom di Tonnerre 2 sofee na fi nga xam ne nii moom di Colobane ginnaaw ba muy def li nga xam ne nii moom di open press am bu ñu fi nga xam ne nii moom di ca jalgati làmb kalifay fekk mooy ki xam ne nii moom di rëg-rëg day waxoon naa leen départ aguma te waajuma départ Sa Thiès day ñëw rek ma yeb ko ci biir gaal gi rek mu daal di neex yéen ñi koy te di ko suivre ci télévision bu mag bi nga xam ne moo di Bawal TV du ne bu ma topp waaye ku jooy na pour la ko dalee Thiès xombal bambay altundangal maak seew kabaak laañaar kër daama kër seer jàll ndul ak pataar kër ibra yaasin sambe ngewel sambe kool dala ba daaru xafoor siyaare sëriñ ba dellu si waat kajoor ak bawal siin saalum fuuta ak jolof ñëpp actualité lamb ak Bawal TV kaolax fati caacaay taata gi Touga Ndar Tivaouane Ngaye Fass Fann Médina Gueule Tapée Grand Dakar ñëpp actualité lamb ak Baol TV revue de presse ak Baol TV Seck Ndanane en ses gloires bu kenn dem restez chez vous